ay leeral ci bracelet électronique di lam bi ñu takkal yenn détenu yi fii si réewu Sénégal moo waral ministère bi ñu denk wàllu yoon organisé bi le atelier jagleel ko journaliste yi ak acteur yi nekk ci biir société civile. présenté bracelet électronique bi wax leen centre de surveillance électronique bi lu muy doxee wax leen lépp loo xamante ni moo nekk ci bracelet électronique ba ñoom ñu xam ko comprendre ko tasaare nag compréhension boobu jàpp nañu ne politique pénale bracelet électronique bi ci lay ëpp succès. jamono gi tembe ci Sénégal yi wërngal këpp lu toll juróom ñoo ngi jëfandikoo la jot nañoo jëfandikoo lii di bracelet électronique. actuellement def nañ cinquante pose de bracelet cinquante poses euh, booy xool sànq won naa leen cartographie bi dem nañ fi dem nañ fi Saint-Louis dem nañ fi Matam dem nañ fi Louga dem nañ fi Diourbel donc euh, ñu ngi xaar daal pour eggali eggali maillage territorial ba. responsable yi centre surveillance électronique dikkaat nañu nag ci melokaanu bile bracelet nga xam ne poids bi buñ koy xayma dafay toll ci téeméer ak juróom-ñett fukki gramme. y a un cadre en bi dafa ànd ak li ñu dippee en titane di yëpp fibre optique maanaam lumière boo xam ne dafay tax képp ku ko jéem a dagg. Euh, lumière ba dafay fay ca saasiya te loolee euh, dafay signaler automatiquement ñu nekk ca centre ba. alerté. ñi di jéem a nag jalgati yoon di tekki bile bracelet am na ay daan yu leen di xaar lu mel ni tëdd kaso lu tolloo benn weer ci fàttali nag doomu aadama yi nga xam ne ni dañ leen a taxal wala ñu tëj leen ci lu ñeel mbirum luubal alalu réew mi ñoom ñooñee moom mënuñu leen takkal yile bracelet électronique jamono gi tembe réew mi am na ci lu tollook junni bracelet